boo bon déguerpissement bi euh, comme euh, ni ñu ko waxee woon euh, semaine passée li ñu ko yëg à travers la presse ne ministre bi jàpp na date pour tëj marché Sandaga pour daaneel bâtiment bi loolu nag parce que waxtaanuñ si woon ak ñoom alors que ñun ñoo demoon demander réhabilitation marché Sandaga ministre le président de la république may ñu ko boole ñëw ministre du commerce bu njëkk ba di Aliou Sarr ñu waxtaan si ba mettre benn maquette en place maquette boobu moom moo nekk nii réhabilitation Mass Sandaga maquette bi septembre 2018 lañ ñu ko présenté ñu validé ko à l'unanimité travaux yi waroon démarrer décembre 2018 waaw c'est neuf mois après que travaux démarré wul ñu indi ñu beneen maquette boo xam ne liggéey euh, liggéeyuñ ci léegi nag ñu ne leen maquette bi fu mu jógee parce que xam xamuñu ko. li waral problème bi mooy dëgg-dëgg mooy bâtiment central bi nekk sunu ginnaaw dafa am un moment boo xamante ni euh, batterie kii bi. Euh, bâtiment bi dafa dem ba nekk en état de délabrement moment boobu noonu mu yàqu ñu war ko defaraat ci diggante bi nag muy mu lakk bi mu lakkee nag ñu fermer marché bi am ñu ci nekkoon ñu am fu ñu leen yóbbu yóbbu leen benn site mooy ñi nga xam ne ñoo doon jaay ay ay euh, lu jum ak ay genre yu demee noonu quoi ñu yóbbu leen benn site am ñu fi nekk nag ñu fi des mooy ñu nekk alentour di marché ak yu demee noonu léegi nag moment ñëw na pour ñu defaraat marché bi léegi defaraat boobu dem ci kilifa réew mi ñu war ñu ko defaral léegi ñu bu ñu ko defaree ba digg na ni ñu koy defaral boobu léegi ñu ngi ciy daw depuis sept ans ñu ngi daw pour ñu defaral ñu marché bi mais boobu ba léegi dara sottiwul léegi ñu toog ba benn moment ministre bi ñëw Abdou Karim Fofana xëy na moom sax dafa jël dossier bi en cours bon am benn suite bu mu def fële euh, champ de course ne léegi dañu fi yóbbu léegi nag problème bi lenn la rek mooy fu ñu bëgg a yóbbu daf ñoo arrangé wul. ah mun naa ne problème marché Sandaga dafa doon problème boo xam ne dafa tiis. dafa concerner képp ku dëkk dakaar Plateau fii mun naa ne c'est le Sénégal en miniature sëñ Fallou Mbacké moo fi ñaanan na marché bi sax si marché bi doon loo xam ne suñu yaay suñu tante yi suñu sœur yi fi ñëw di dugg mais tey dafa am beneen anam boo xam ne marché bi da ko doxee tey soo xoolee marché bi lu lu sooxee bare na trop ñun da ñun ñun résident Dakar yi nekk fi dañuy ñaan yàlla marché bi melaat nu mu waroon melaat tey. suñu maam yi dee yaa soixante-dix ans soo leen yeewoon tey ñoo leen ñoo leen fi mooy Sandaga seen xol day jeex. Sandaga daal amul benn problème problème la entre commerçant yi ak un ministre bu ñuy wax Abdou Karim Fofana bu ñëw walla si jël dossier bi en cours fekk dossier buñu ñu ba noppi la jël en cours ñëw nekk genre agresseur devant moom ak Sandaga loolu rek moo am problème. non xam nga moom moom moo waxoon rek ne le 3 d'ici le 3 na ñëpp rejoindre site champ de course. mais pareegul boo demee léegi xam ni pareegul mën naa mën naa la woon léegi lii demb lañ ko demb préfet moo fa demoon mi ngi nii dafa génn ma champ de course bi. vidéo champ de course préfet moo fa dem demb ànd ak ay commerçant gars yi ne ko préfet yaa ngi taxaw nii yow yaa jël décision lii pare na mu xam ni pareewul moom. faut être sincère dans la même bu fekkente ne dañ lay teg paaka sa put na ba pare faut être sérieux euh, dañoo tegoon benn comité de pilotage en euh, en place boo xam ne démembrement état bi yëpp si la bokk surtout adjoint ministère de l'urbanisme groupement de sapeurs pompiers les transporteurs les riverains ak les commerçants kon nag maquette boobu liggéey nañ si ba pare kon nag su nekkee retard am na si ñoom la ñoom ñi nga xam ne ñoo toog neuf mois après indi leneen lu bokk lak li nga xam ne si lañ liggéeyoon. waa xam nga euh, septembre euh, mois de août deux mille dix neuf euh, dañ see dañoo toog ubbi woon parce que si la ministre bi njëkkoon décidé ne day tëj Mat Sandaga mais bu mu ko décidé ñu ne ko woon soo ko tëjee fooy recaser nit ñi mu ne moom amagut site de recasement ñu ne ko nooy tëjee Mat Sandaga woon nit ñi. mu ne kon nañ arrêté discussion bañ trouver site de recasement léegi nag après ñu teg fa neuf points yoo xam ne dañ see boole woon ne si sois site de recasement bi nañ ñu si impliqué mais malheureusement toog nañ ba si ay gis leen ñoom ñu choisir soit site de recasement bu champ de course wax nañ leen ne leen a ngi choisir site boole wuñ ñu si mais ñoom ñu continuer seen liggéey ñu am na quelques éléments yu demoon bëgg a visiter site bi may ñu leen ñu dugg léegi nag ñu dem ba liggéey site ba pare nag xëy na commerçant ñëw leen xool ñoo leen li nga xam ne nag euh, waxoon nañ leen non seulement site bi bëgguñu ko mais pare yéen ba nga koy def a euh, lañ ci confection boolewul si kon nag euh, ñun site boobu nanguwuñ ko. ñun li ñu waxoon mooy bañ ñun ñoo bëgg ku ñu defaral mais boo ñuy defaral aussi da ñuy yóbbu foo xamante ni bëgg nañ ko benn mooy fa ñuy yóbbu da ñuy defaral dañ koy bëgg benn. deuxièmement ñun danga ñuy boole ci liggéey bi danga ñuy boole ci liggéey bi bañ d'accord ni fii baax na nga nga jël ñu signé ñu ay garantie yu wóor nga xam ne bu ñu demee bu bu fi paree dañuy ñëwaat non loolu am loolu ci li mu wax moom ci li arrêté préfectoire bi mooy auge tey la wax waaw non du affaire bett sax du affaire bett parce que déggoo ma ne dossier bi depuis trois ans sept ans ñu ngi ciy liggéey kon kay bettu la fa mu ñu yóbbu moom moom lañ bëggagul fa mu ñu bëgg yóbbu moo ñu moom lañ bëggul